الحمد لله الذي خص شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل ورفع فيه فدائل الأعمال والأقوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد قال ربكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي شهر رمضان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة وفيه نزل القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وشهر رمضان هو شهر الصبر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك شهوته وتآمه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom mi nga xam ni moo jagleel weeru koor jagle goo xam ni defu ko ci benn weer wudul moom waaye itamit noonu la yëkkatee mboole mi jëf yi ci jaam bi jëf ak mboole mi wax yi ci jaam bi di wax gën koo kaweel ci beneen weer bu dul moom ñi ngi seede na yàlla dong yeyoo ñu koy jaamu nañu koy jaamoo yi dañ ko war a royee ci kim doyloo woon yónni ko ci ñun yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngeen góorgóorlu ragal yàlla ni yàlla subhanahu wa taala yeyoo ñu ragal ko ko bu leen dee mukk lu dul fekk yéen a ngi jébbalu doon seen jaami boroom mbokk dee googu nga xam ne fokk mu ñëw lañuy jëriñ gannaawam du seefa du ay tabaxeki oto lenn dong dong moo ñu fa mën a jëriñ muy tuyaaba joo xam ne yàlla dañu ko nangul ca xam leen ne la gën a màgg ci tuyaaba moom mooy li nga xam ne moom mooy ragal yàlla moo tax sunu boroom subhanahu wa taala ba muy wax ak ñuy aj màkka bokk nu lum leen wax nga la waay yóbbalu leen waaye xam leen la gën la ngeen di yóbbaloo mooy ragal yàlla ca mbokk aj makka da ngay gis ne mën naa faa yóbbaale bagage yu àdduna mu ana foo xam ne bala nga faa dem dañ lay summi ba nga set wecc ñu la mës la yóbbu la lenn dong la fay xaar mooy say tuyaaba ca la gën ci tuyaaba moom mooy la nga xamee ni ni moom mooy ragal yàlla moo tax sunu boroom ngir bëgg ñoo teral yowmal qiyaama ngir bëgg ñoo teggil mbugalam mu ne ay yéen julit ñi farataal naa ci yéen koor nama ka farataale woon ñi leen jiitu ngiree ngeen am ragal yàlla googu nga xam ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra ragal yàlla ngoog sunu borom mu ne boo ko defee ci àdduna day say xat-xat danaa la ca wutal bunt boo ca génne wërsëgal la foo ko foogewul ragal yàlla ngoog boo ko amee jëf ya ngay jëf lu mu néew néew man yàlla danaa ko yëkkati màggal say pay ragal yàllaa ngi boo ko amee bàkkaar yoo ma mën a indil danaa loo ko faral ca tabbal la la nga xam ne mooy sama aljanna loolu la borom bi ne faratal naa ci yéen koor ngiree ngeen julit yi ngeen am lii di ragal yàlla mbokk ragal yàlla mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem looloo tax ba sunu borom subhanahu wa taala mi ngi amal commencement loolu ci biir weeru koor weeru koor la yàlla tànnoon wàccee kii di jibril alayhi salaam ci kaw sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam jox ko yóbbante bi gën a màgg bu mas a yóbbante ci kaw suuf gannaaw ba mu yónnee nuux ibrahim muusa ak ay junni junni yonent mu jox ko diine ji gën mooy diine lislaam waaye boole ca wax ja gën a màgg téere ba gën a kawe li nga xam ne mooy alquran sunu borom ne maa ngi ko wàcce ci li nga xam ne mooy weeru koor di weeru entraînement bu julit di tàggat boppam ngiree mën a dëppoog alquranul karim waaye mën a tàggat boppam ngir mën a dëppoo ak la nga xam ne mooy diine lislaam tàggatu googu ngay tàggatu jéem a jege boobu ngay jéem a jege sa borom sunu yonent ci alayhi salaam daa nañu bégal ni doomu aadama yi day diggante julli ak moroomam dana far bàkkaar ya fa nekk diggante ajjuma ak moroomam dana far bàkkaar ya fa nekk waaye diggante weeru koor ak moroomam dana far bàkkaar ya fa nekkoon su dente ne doomu aadama bi dafa góorgóorlu ba moytu li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi alagaate loolee mbokk ci xadis ya gën a wér la bokk buxaari muslim soloo ko weeru koor mooy weeru muñ julit bi day muñ la nga xamee ni ni moom la sunu borom wax ca borom boobu subhanahu wa taala nee na man day muñkat yi su ma leen di fay yowmal qiyaama du ma ko natt innama yoofa saabiruuna bi xayri xisaab kenn du leen nattal amma ci muñ googu ci la bokk weeru koor looloo tax mu ñëw ci xadisu qudsi mooy loo xam ne yàllaa ko wax doonte ne duñ ko jàng ci alquran sunu borom ne doomu aadama day jëfam yépp moom la ñeel bam des koor koor moom maa ka moom gaa yi sunu borom nee na koor moo ko moom kaw suuf yépp yàlla moo ko moom waaye jàkka yi sunu borom yàlla moo ko jago loolee itamit ngeen gis na nee na koor moom maa ko moom ndax secret la bu dox diggante jaam bi ak boroomam yàlla rek moo mën a seede doomu aadama bi woor walla bu dul loolu jabar li muy jege jege jëkkër jëkkër mën naa dog kooram ca jabar du ko yëg xarit lu mu jege-jege xaritam mën na dog kooram te du ko yëg waaye da ngay gis sunu borom moom kenn mënu koo nëbb moo tax mu ne maa ko moom te maa koy fay looloo tax heure buy fay jaam bi yowmal qiyaama loolee da ngay gis ne du ko regleel comme yeneen tuyaaba yi nga xam ne malaaka yi xam nañ ay fayam boo defee tuyaaba ñu fay la fukk wala juróom-ñaar fukk wala juróom-ñaar téeméer amma bu dee koor sunu borom mu ne déedéet du ma ko dénk benn malaaka man yàlla maa koy fayal sama bopp ndax jaamu yàlla jaamu yàlla bi bàyyi na bànneexam ca mooy soxnaam bàyyi na lekkam ak naanam loolu lépp ngir man looloo tax danaa ko jagleel ñaari mbég heure boo xamee ne mi ngi dog kooram dana kontaan sawaun dogug bis bala mooy heure boo wooree bañ na ah jant bi sona dog jot na da ngay gis da ngay kontaan daa di lekk sa tàndarma boo ko amee mooy la gën soo ko amul nga naan sam ndox sant yàlla waaye boo wooree it ba weer wi jeex ñu ne ah weer wi day feeñ na gis nañu ko bisu ëllëg ba di nekk bisu it nga kontaan ca kontaante boobu ngeen di am xam leen ne bés bi ngeen di dajeeg seen boroom la kontaante bi di gën a màgg bés bi ngeen di dajeeg seen boroom la kontaante ba di gën a màgg moom la sunu boroom yàlla wax naka noonu it borom bi ne ki nga xam ne dafa wóor toog lekkul naanul ba mbaqam nga doon lu vide léeg-léeg am xet gu cay jóge nga xam ne moroomu doomu aadamam bu ko jegee xet ga du ko neex sunu yon sunu borom subhanahu wa taala ne xet googu day moo gën a neex ci seen borom lii nga xam ne mooy misk ca mooy parfum bi gën a neex ci parfum yi ay yéen mbokk julit weeru koor mi ngi ni dugg ci ñun sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam nee na ca njëlbeenu guddi ga la yàlla di ubbi mboolemu buntu yiw yi ubbi mboolemi bunta aljanna yi ñu tëj mboolemi bunta sawara yi sunu borom wàcce ay malaaka malaaka yi naan ey yéen ñi doon sakku yiw kaay leen occasion baa ngi nii waaye di woote ey yéen ñi nekkoon ci càggante gàttañ lu leen bàyyi leen xam leen ne weer wii du weeru def na ko sudul noona mbokk sunu borom yàlla ci li nga xamee ne mooy weer woowu guddi gu nekk dana am benn liste bu mu jox malaaka yi ne leen sama jaam yi moom goral naa leen ci sawara yal na yàlla boole ñu ci ñooñu ca loolu day am ba ba ah fanweeri guddi weeru koor wala ñaar fukk guddi ak juróom-ñeent amul benn guddi lu dul sunu boroom génne benn liste bu mag ne malaaka yi ñii ñoom xam leen baal naa leen goral naa leen ci sawara bokk na it la gën a màgg mooy sunu borom dugal na ci weer wi benn guddi goo xam ne moom la ñuy tudde laylatul qadr sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na xayrum min alfi shahr loolee borom xam-xam yi am nañu wuute ci ban guddi la waaye am nañu ca noppalu ey yow jaamu yàlla bi weeru koor ñaata la at mi nekk na trois cent soixante guddi lu jege loolu waaw léegi moom weeru koor fanweeru guddi la au maximum loo fay nekk di xool naan laylatul qadr quinze la am seize wala vingt sept jëlal guddi weeru koor yépp def ko guddig laylatul qadr mooy def ko guddi naafila guddi toroxlu ci ñaan guddi def lu baax sunu borom nee na guddi googu day ku ko màggal mokk saxoon juróom ñetti fukki at ak ñetti di ko jaamu yàlla yaa ko ëpp tuyaaba te mooy la nga xam ne dañ koy tuddee junni ci ay weer loolu moo tax ba nga la way mbokk julit weeru koor a ngi di weeru occasion bu màgg bu sunu borom ubbi ci ñun muy weer wu ñu war a yokk ca warte ci lépp loo xam ne dafa aju ci sunuy liggéey weeru koor du ne rek ñëw na nañu bàyyi liggéey yi liggéey ci jaamu yàlla yi gën a kawe la heure bu la yàlla wërsëgalee ngay liggéey di woor mu metti lool xamal ne noonee it la tuyaaba ba di gën a bari waaye weeru koor mi ngi nii ngalawaay mbokk julit xam leen ne occasion yi gën a màgg ñaari ubbi victoire yi gën a màgg yi yàlla may lislaam mi ngi ko ko may ci weeru koor benn ba mooy xare badr keroog mi ngi amoon ca ba yàlla subhanahu wa taala dogalee weeru koor yonent bi ak i sahabaam daje ak ña nga xamee ne mooy yéeféri màkka ya nekkuñu woon lu dul ñetti téeméer yéeféer ya matoon nañ junni sunu boroom dimbali leen ñu daal di gañe loolee nga xam ne moom la ñu tudde yowmul furqaan bis bi yàlla jëkk a teqalee diggante dëgg ak fen ba sax da ngay gis lenn ci fuqahaaw yi dañ ne guddi googu nga xam ne moom la gazwatu badr amoon muy xare badr loolu mooy laylatul qadr ndax la ko yàlla tudde laylatul yowmul furqaan bisu teqalee ba gannaaw ubbee bu màgg ba mooy ban mooy fatxu makka ci weeru koor la yàlla dogaloon sunu yonente alayhi salaam ubbi makka bi nga xam ne moo nekkoon capitalu dëkk bi bam ko gañee ubbi ko la mboolemi giiri arab yi daal di commencé def ay délégation di ñëw di tuub di dugg ci l'islam ñu tudde ko amul wufuud moom la sunu borom di wax naan ida jaa nasrullahi walfath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja yonent bi alayhi salaam amoon coono lool ngir woo nit ñi waaye bam demee bu ubbi makka madina la toog bus bu nekk délégation bu mag ñëw na ñun ñooy waa dëkk sangam tuub nañ dugg ci lislaam mbokk loolu it mi nga amoon ci li nga xamee ni ni moom mooy weeru koor loolu it yow moo tax nga war a góorgóorlu weeru koor jéem koo def weeru ubbee jéem a góorgóorlu jéem cee jàng xam-xam jéem a góorgóorlu jéem cee def lu baax na doon loolu seeti ñu feebar la wala dimbali képp koo mën a dimbali xamal ne bokk na yaakaar ba gën a màgg bu jullit de war a yaakaar yàlla defar ay mbiram adduna ak alaxira mooy mu daa di taxawe weeru koor nam nam gën a rafet ci taxawaay daa di yaakaar na ca yàlla ubbeele woon yonent bi ci ubbi gam ko ubbiloon loolee da ngay gis ne moom la ñu ubbil keroo xare badar yonent baa ngi taxaw nan yàlla su la neexoon kenn dootu la jaamu ci kaw suuf yàlla boo ñu dimbaliwul day sunu armée bu néew bi ba ñu rey ñu kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ndax yàlla xamaloon na ko mooy mujjeelu yonent ca mbokk yàlla buñ ko jaamuwul it dara la ko wàññiwul kon loolee victoire boobu ñu amoon ca badr ngalla waay xam leen ne moo tax ñu toog fii ci jàkka ji tey fas yéenee jaamu yàlla ci julub juma loolee lan moo fan la ko yàlla dogale woon mi ngi ko dogale woon ci biir weeru koor di weeru gaat nga gu rafet di weeru yaakaar yal na yàlla ubbil ñu ci bépp bunti yiw yal na yàlla tëjal ñu ci bépp bunti musiba yëkkate ci sunuy daraja wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داء إذا دآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال صلى الله عليه وسلم للسائم دعوة لا ترد وقال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب متفق عليه شهر هذه خصائصه وفدائله فالعبد الصالح يستقبله بتوبة النصوح والعزيمة الصادق على اغتنامه وإمارة أوقاته بالأعمال الصالحة والصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفس ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع تآمه وشرابه متفق عليه واذكروا دائما قوله تعالى كل, ابن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ay yéen mbokk julit yi ñu ngi yeesal di sant sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne mënuñu peeg ay xéewalam waaye di ko ñaan ci kim jaarale woon xéewal ga gën a màgg muy sunu yonent muhammad salallahu alayhi wa sallam mu julli ci moom julli ci njabootam ak ña ko nag nangoo topp ba ilaa yumi din yonent boobu la sunu boroom waxoon ne samay jaam day buñ ma lay laaj nee leen man ko leen jégalaa ko leen jégalaa ci lu ñu wax maa ngi koy dégg lu ñu def maa ngi koy gis ngal la way loolee mbokk benn woote bu màgg la sunu borom teg ca ne danaa wuyu aji woote su dee man la woo waaye ñoom it nañ ma wuyu si ca nañ ma gëm suñu bëggee jub mbokk sunu borom nee na ku ko woo mu wuyu ko waaye woote bi yàlla dafa am numéro téléphone wala mu am benn timbre buñ koy taf téléphone ba wala timbre ba mooy lan mooy fal yuminu bi wal yuminu bi mooy nañ ma gëm ca wuy si samay ndigal soo bëggee yàlla namm say nangu say ñaan nang koo wiital bul yaakaar keneen kudul yàlla bul ragal keneen kudul yàlla bul jàpp mukk ne àdduna ji ngay nekk ba baa ngay dee am na kenn ku la mën a ñoddil xiiwal kudul yàlla waaye àdduna bi ngay nekk ba baa ngay dee amul kenn ku la mën a teggil lor kudul yàlla alaxira jee ñu jëm amul ku fa am lor wala njëriñ ku dul yàlla ngalla waay na nga gëm loolu ñaareel ba mooy la la yàlla sant na nga ko def moytul ma lu xaraam góorgóorlu ci jaamu yàlla lii day sunu borom nee na tant que yéen a ngi ci su ngeen ma ñaane ma may leen mbokk mayug yàlla paase na nga ñaan ko oto mu may la oto abadan sunu borom yàlla mën nga koo ñaan oto mu may la oto waaye mën nga koo ñaan oto au lieu de oto mu may la lu gën oto wala mu teggil la tiis boo xam ne dalay jaaxal noo ci mucce benn waaye ngi dem na accidenté ñam nekk loolu ñëpp dee moom dara jotu ko et pourtant musul ñaan yàlla musal ko ci accident ba waaye am na xéewal gum doon ñaan yàlla guddeeg bëccëg jotu ca woon yàlla daal di koy fayee musal ko ci accident boobee bokk na la gën a neexit yàlla dencal la ko ba yowmal qiyaama waaye julit na sa xel dal na foo ñaane yàlla yàlla nangu na ko ñaan googu nag dana gën a mate ca la nga xamee ne mooy weeru koor xam leen ne sunu boroom mën na mere ab jaamam sax am yeneen place mu ñaan ko fa mu bañ waaye am na place yoo xam ne ku ca ñaan yàlla mu may la bokk na ci loolee la nga xamee ni nii moom mooy weeru koor wala bëccëg bu mel ne nii bëccëg ajjuma bi sunu yonente alayhi salaam nee na yàlla dugal na ci benn waxtu woo xam ne jaam bi lum ci ñaan yàlla subhanahu wa taala da ko koy may loolu moo tax ba ay yéen bokk julit xam leen ne sunu yonente alayhi salaam bokk na lum ñu doon bégale mooy yowmal qiyaama suñu fa demee yàlla dana woo ñu yeyoo dem àddina yépp ubbil leen bunti àjjana yi mu nekk juróom ñetti dugguwaay yi su ko defee am na fa lu ñuy tuddee pavillon d'honneur soo demoon aéroport tey am na fu président yi génne bokkul ak fu baadoolo yi génne am na pavillon d'honneur ba yàlla di dalal ay jaamam tàbbal leen fa ñooñu mooy ñan mooy woorkat yi bu ko defee yàlla wax malaaka yi woo leen woorkat yi ñoom ñépp daal di jóg taxaw yàlla na yàlla boole ñu ca sunu borom yàlla ne kaay leen ngeen dugge ci bunt bi su woorkat yi duggee sunu borom ne malaaka yi tëj leen bunt bi képp koo xam ne musta wor du ca dugg ay aka perte ay aka perte waaja nga xam ne benn waay nax na ko na ko bàyyil julli bàyyil woor kay bay samay tool di ma jox addiya maa la gàddul aljanna ay waay yaa ko perte ay waay dellul dellul gannaaw ci moom weddi ko gëm sa yàlla gëm sa yeneen ci yàlla xéewal gu mel ne koor ci àdduna ak alaxira ku la ko xañ wallahi moom nga war a gën a noonoo ki ñëw màbb sa kër rey say doom loolee ni ngeen ci bàyyi xel bu baax loolee mbokk yi tamit dañuy gis ne weer woo xam ne nii ngëneel yu màgg yi sunu borom dugal na ko ci ma yow jaam bu baax noo ko nar a dundee ma yow jaam bu baax noo ko nar a teeroo yow jàmm bu baax nga la waay la jiitu na nga góor góorlu ci daal di ci dogu dogu goo xam ne dogu gu màgg la ci jéem a xool bépp bunt yiw boo xam ne ma nga ca nga fexe ba bunt yooyee nga fëgg ko ci lépp lu ci nekk ci jullee koor ak jàngal quran saraxeeg def lu baax waaye góor góorlu ba ay ërëm mboole seen nga daal di koy taaral ci nekk ci loo xam ne neex na yàlla moytul ma bépp place boo xamee ne nii xam nga ne fii kan ngërëmul yàlla ne ko fi gannaaw ba mbokk nga góor góorlu sa kemtalal kattan xam ne lii nga xam ne nii moom mooy weeru koor nekkul rek weeru bàyyi lekk bàyyi naan waaye la gën a màgg ci weeru koor mooy ñu daal di wóoral la nga xam ne mooy sunuy cër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne seen borom day nee na koor gi doon na junna ci yéen junna ay mooy koor ci àdduna day dox sa digganteeg def lu bon day dox sa digganteeg wax lu bon waaye naka noonu yi junnatun min annaar la soo demee yowm alqiyaama day dox sa digganteeg sawara hatta borom xam-xam yi dañ ne aqi jaam ya nga gàddu woon lekk nga alali kay tur nga dereti kay tooñ nga kay ñoom ñépp ñu taxaw yowm alqiyaama fay ma fay ma fay ma bu la yàlla subhanahu wa taala di fay sa koor dana la fayaale loo xam ne dana ëmb ak yooyu yépp ba tax doo tabbi sawara moo tax ñu ñu ne ñu tudde ko koor day nekk na loo xam ne tata la tata la boo xam ne nii nag boo ci duggee fexeel waay ba jéem a bañ a màbb miir ya ndax loolu kan day tax du la musal lan mooy loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen bu nekkee ci koor bu mu waxati wax yoo xam ne daa jëm ci wàllu sëy ca loolee ña ngi ci jublu sa soxna amma nag keneen ku dul sa soxna loolee moom na doon dafa doon koor ak bu dul koor dañ ko xaraamal ci yow waaye xatta say soxna bul wax ci ñoom wax yu jëm ci wàllu sëy waaye itamit bul nekk di yuuxu ak a nekk di xuloo bal bu dee benn waay daa ñëw daa di ñëw wax la wax ju ñaaw nee ko man day damaa woor même bu doon daa ñëw sax ba max la ca yow man nga ko duma ak fukki moroomam waaye teewul ne ko dama woor ana lu waral loolu mooy yow day danga ne woon koor gi maa ngi koy defal sama borom te borom bi subhanahu wa taala moo ne asawmi lii yàlla lay wooral kon lenn lu ñaaw duma ko ci def yow saay saay bi du tax mu yàq ko doo ma tax a wax lu bon doo ma tax a jëf lu bon loolu mbokk mooy weeru koor jéem a wooral sa làmmiñ moytul ma fen moytul ma la gën a garaaw mooy jëw mbokk julit ñi moytul ma rambaaj moytul ma lépp loo xam ne yàlla yërëmu yàlla gërëmu ko bokk na la borom xam-xam yi doon wax xam leen na làmmiñ jaan la bu leemu sa biir gémmiñ moytul gën jaa tar ci ah moytu bala mu lay matt di la alak ay yéen bokk julit xam leen ne la gën a màgg ci la nga xamee ne it moom la ñuy teeroo weeru koor moo di ne ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ca mooy képp koo xamee ne nii lii di jëf ju bon bàyyiwoo ko ci weeru koor lii di wax ju bon bàyyiwoo ko ci weeru koor yàlla subhanahu wa taala day soxlawul nga daal di julli wala soxlawul nga daal di woor loolu it muy woone ne gannaaw lammiñ ngalla waay nañ contrôler sunu nopp yi ay yow ndawal julit bi nga xam ne foo ma san toll sa mp wala sa portable ma nga say nopp ngay déglu musique guddeeg bëccëg ay waay soppil ma loolu alquran soppil ma loolu ay waaraate ay yow mi yàlla nattoo woon film yu bon yi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan ci télévision bi nga la waay soppil loolu ca la lay jëriñ ca sa wàllu adduna ak sa wàllu diine bokk na la nga xamee ne it moom mooy la gën a màgg mbokk julit mooy la nga xamee ne nii mooy tuub gu sell ci weeru koor ay yow ndawal julit mi nga xamee ne yow doomu julit nga xëy na sax yaa ngi doon julli waaye di sàgg ne julli gi ca sa borom yàlla ne waylun lil musallin alazina hum fi salatihim saahuun ngalla waay góorgóorlul sa mbokk julit fexeel ba bul faatati benn julli mukk dee ko julli ca waxtu wa yow góor ak jigéen waaye bu dee góor nga ngalla waay del dem ca jàkka ja di ko fa jullee te xamal ne dëkk ak jàkk doo fa jullee ji loolu musiba munta passé loolu rawatina yow mi nga xam ne da ngaa dogg a toll ci majeur na doon passé nga fukk at ak juróom wala tëdd nga gént ne man kat am na man yu ba génn ci man xamal ne léegi yaag sa baay yéen a yem wala yaag sa yaay yéen a yem li la war ci koor gi mooy da nga koo war a woor mboole seen boo ci dogee benn heure def nga musiba waaye la la war ci julli yi mooy da nga koo war a julli lépp boo bàyyee benn julli def nga musiba ey yow xale bu góor wala bu jigéen bi yàlla nattoo woon njaaloo di bakkaar bu bon bu màgg boobu nga xamee ni nii la gën a néew mooy bu dee ne yow mosoo sëy lislaam la mu waxoon dañ laa war a yóbbu ci penc ma dóor la téeméeri yar su dee mas ngaa sëy dañ laa war a tiim ak i xeer dóor la ba nga dee loolee bakkaar bu mag bu bon bu musiba ngi noonu ngalla waay weeru koor gi na nekk occasion ci yow nga dogu ci yàlla ne dootuma njaaloo ba ba may dajeeg sama boroom soo ko defee day même bu doon masgata jaar lépp sunu borom dana ko soppi daf koy tiyaaba bindal la ko sa téere yowm alqiyaama waaye yow xale bu jigéen bokkoon na occasion boo xam ne ni nit ñi dañ daan def bu weeru koor jotee nga gis ñu denc seen col yu bon yi pantalon yaag jupe yaag jumbux aawud ya jéem a rafetal col ba ba weeru koor passé hatta loolu mbokk yi nit ñi fàtte nañ loolu xale yi tey bàyyi nañ loolu waaye yow sama doom bu jigéen góorgóorlul na nga mën a muñ a lekk ak naan mañ a muur muñ la nga xam ne mooy xiif ak mar góorgóorlul jéem a muñ jël muur sa awra ñetti fan lañ la cay saboote jëm ay yàggul dara nit ñi bàyyi la nga miin ko nga daal di am sa ngërëmal boroom ngërëmal malaaka yi ngërëmal jaam yu baax yépp ay yow mi yàlla nattoo woon fii mi bu bon bi xamal ne sunu borom nee na yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat sunu borom nee na day lépp loo xam ne nii riba la yàlla nee na dana ko màbb même bu doon gañe nga ca la nga ca gañe dana ànd ak la nga liggéeyoon bu baax yàlla subhanahu wa taala màbb ko amul kenn koo xam ne ancien joueur pays mi la nga gis ko di ko ñee abadan abadan lépp loo xam ne nekk woon da koy toroxal góorgóorlu leen ci musiba yi nga xam ne moo xew suñu réew mooy pass bi da baaxul waaye am na ma caat mbokk ma caat loolee lu barkeel moo ko gën baqiyatullahi xayrun lakum la shuaybu waxoon sunu borom yàlla nattoo na la yaa ngi am masalan cent mille francs par par par mois na la loolee doy bul ca ma caat cinq cent mille wallahi cent mille yu yàlla barkeel moo gën un million yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala barkeelu ko ana ñaata nit ñoo fi nekk lu ne ñu daj ko ci alal dajale ba sonn waaye dañoo xëy xëy rek yàlla nattoo leen feebar boo xam ne lépp fajoo nañ ko wala buñ ko fajowul it dee nañ dem bàyyi ko foofee na ngeen góorgóorlu yéen ndaw ñi occasion bàyyi musiba bu bon a ngi nii muy cigarette occasion bàyyi musiba bi bon muy cigarette cigarette boobu nga xam ne nii sunu borom yàlla subhanahu wa taala dogal na ci li nga xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko nee nan dana rey lu jege juróomi million ci àdduna bi at bu nekk waxumaa nag la nga xamee ni dana ko jur ci ay pollution loolee itamit nga xam ne da nga lor jaamu yàlla yu bari ci yëguloo ko góorgóorlul weeru koor ne ko occasion nga bàyyi loolu amma ña nga xam ne nag ñoom ñooy jëfandikoo yaayi cigarette te mooy yamba nga la waay yéen it occasion mi ngi nii góorgóorlu leen ngeen bàyyi yamba bu bon boobee seytaane taaral na seen xol ñu naan diw day gëriyee la ndax day tux yamba wallahi diw kon rek la ngeen baal ma baat bi ci jàkka ji képp ku jël sa alal di ko jënde loo xam ne day yàq sa santé yàq sam xel loo xam ne bu yàggee même bu dee def loowula it dana la def nit koo xam ne ko manki nga ba ku dégg say wax xam ne ko manki nga nga la waay yéen ndaw ñi ko musta essayé nga góorgóorlu leen bu leen ci dugg mukk waaye yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na ngeen mosoon koo nekk it na weeru koor bi nekk occasion ngeen bàyyi ko mbokk la nga xamee ni nii moom la ñuy tëje mooy yow jaam bu kum mën a doon weeru koor mooy weeru ñaan la gën ca la ñuy ñaan yàlla mooy mu saxal ñu ala siratin mustaqim lépp loo xam ne sunu borom yàlla bëgg na ko ci ñun yal na yàlla jàppale ñu ñu jëfe ko lépp loo xam ne yàlla xaraamal na ko ci ñun yal na yàlla doxale ci sunu digganteeg moom barrage abadan yal na yàlla sàmm ñu teg ñu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu sunu koor ak mbooli mi jaamu yàlla lépp luñ ci def mu néew ko bari yal na ko yàlla màggal ca nangu ko yal na yàlla wërsëgal ñu njaboot gu barkeel gu teey gu sax ci jaamu yàlla nekk sedd xol ñeel ñu nekk sedd xolu mboole mbokk julit ñi yal na yàlla teggal ñu natt yi ak fitna yi yal na yàlla xat-xat yi ñuy jàmbat ci réew mi yépp yal na yàlla teggal ñu ko ci mbaaxam ak yërmandeem yal na yàlla baawaan ay xéewalam ci sunu réew ba ñépp ñu tukki woon mën a delloo si ci jàmm ñépp ñi fi nekk bañ a xalaat bañ koo génn yal na yàlla wërsëgal ñu mujj gu rafet defal ñu ñu ñépp àjjana muy sunu wàccuwaay subhaana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin